tey dimanche dama koy dama koy jàmba ma ñëw ci affaire électricité bi Sénégal xalif général yi seen kër est-ce que ñeme ngeen a génne seeni facture li ngeen amel Sénélec yéen xalif généralu Sénégal seeni kër seeni étage seeni villa xam ne ci kaw am na kilim ci suuf am na kilim ci kaw am na télé ci suuf am na télé ci kaw am na frigo ci suuf am na frigo ak seeni jabar ñaata ngeen di fay courant du ngeen katt seen ndey génne seen facture courant kër génne leen ko ñaata milliard Tiwaawan ñaata milliard ngeen amal Senelec Touba seeni juma ak kër xalif généraux yi ñaata million ngeen amal Senelec Senelec bu ñu ñemee rek nañu ubbi seen jaw ndey wax ñaata nga lañ lan lañ amel kër xalif généraux yi ñun xam nañ léegi peuple bi moo koy fay comme xamuñu milliards yi xeex bi entre kër xalif généraux yi seeni facture électricité ak Senelec yàgg na seen xeex dab depuis avant Abdou Diouf la commencé avant Abdou Diouf ah la seen xeex commencé entre facture kër xalif généraux yi facture jumaa yi ah dal boobu foofu la commencé boobu ba léegi ngeen di ko xeex ak gouvernement bi ba léegi nag milliards yooyu perte de milliards yooyu nekk si yéen sëriñ si ah Senelec nag bëgg kaa këpp nag ci biir population bi pour ngeen ñu mën a récupérer seen alal yéen a toj seen dëjëw ndey wax leen loolu génne leen yéen seeni facture Oustaz Sall dafa génne facture am Kara dafa nga génne sa facture kër nga génne facture kër xalif généraux yi ba waa ba si waa waa ni ñu koy wala yeni genné len seni facture keur khalif généraux yi du am ngeen ay facture genné len seni facture te ak na tak kat ndayam wax ñaata lañ len amel xaalis yeen khalif généraux yi ñaata ngeen amel ay milliards ci ci ci Senelec wax len ko mo gën ngeen di jël facture yoy di tek sur le dos du bas peuple ñun xam nañ sen business seeni combine yéen deug sen ndey motax di ngeen wat ci lampe pétrole Il leen delluwaat ci lampe pétrole Nous yéen a loué bateau hôpital jóge ci bateau hôpital dem loué du bateau central électrique ba kañ ba population vit de souffrir à cause de vous ba bateau hôpital ngeen luyee ko ak bateau centrale électrique lan moo des ban genre bateau moom la ñu war a indiwaat Sénégal pour poser que xanaa bato alimentation alimentaire du ngeen ubbi seen génne leen seen i facture ñun xam nañ xam nañ ne da ngeen a amal Sénélec ay milliards yéen kër xalif généraux yi génne leen seen i bu fekkee li may wax ay duul la génne leen seen i facture wala Sénélec dévoilé loolu vérité boobu naka kattan ndayam Sénélec dévoilé parce que sinon investissement do am te kenn du jënd nday Senelec ne ñu prévoir bateau bobu tegal ko foofu mu ngi Turquie pourquoi la les maisons des Halifs généraux ne payent pas d'électricité ne paye payent même pas de l'eau même le ministre l'a dit il y a un an ou deux ans en arrière que vous ne payez même pas de l'eau chez vous alors l'année montagne lu tax ñu bëgg doubler facture yi kattan ka nday jox ko jox y ba peuple bi ah ñaata milliards ngeen amal Sénélec wax leen ko Sénélec naka Le kër xalif Général, yi ndax dinañ fay courant wala duñu fay courant am nañu ay facture wala amuñu ay facture est-ce que ci peuple bi lañu bokk wala bokkuñu ci peuple bi est-ce que ci république du Sénégal lañ bokk wala bokkuñu ci république du Sénégal bu y a deux républiques la république des marabouts et la république normale ah Alors pourquoi donner de l'argent aux autres Pourquoi ñun dañuy naan duñu màndi lii ndox la si ñun wax leen seeni facture moo gën ngeen di wax ne peuple bi da ko fay à votre place déjà du ngeen fay ndox Touba du fay ndox du fay ndox layene ni fay ndox ba kañ ba ndox mi ay ay ay pour ñoy ñoy pour ngeen man am si seen biir kër bu robinet public publiquement, dañ dan comme ça les gens qui portent l'eau ils savent la valeur de l'eau ils savent ce que c'est porter des bassines d'eau et l'amener dans ta maison et dire à tout le monde qu'il faut économiser l'eau touba kañ la Santa ans en arrière du yéen a ngi woon ci ay néegu ñax da ngeen amone won courant da ngeen amone courant touba barni secteur yoy yeb dafa amone courant du ñu ngi ci ay ñax ñi ñi ñi ñi applaudir tay ah ñom bi ñuy doon dund ñu ngi doon dund ci ay néegu ñax te ñu ngi am yalla ci negu ñax amuñu yalla ci material courant wala fess ak matériel boo mais si du ngeen fay dem leen wax waa Sénégal, ngeen wala wax Sénégal peuple bi ah sénégal wax leen waa peuple bi dëgg googu ko wax ko mais bu leen jël euh, dose bi ngeen dem di ko ba peuple bi ngeen bàyyi leen ñoom ñu fay courant duñu fay ndox moo am des milliards si je dis pas de conneries je vous dis le chiffre des milliards pare bëgg ñoo fontoo oustaz oustaz xaw ma nan sàlla oustaz Omar Sall xaw ma Ousmane Omar Sall ah bu fekkee facture courant bu jar sept cent mille moom ngay katt sa ndey wane parce que si sa poche lay jógee waaye bu ñu wanee fu ñuy maltraité fu ñuy maltraité taalibe yi ah yéen du ngeen génn manifester mais bu ñu waxee courant courant parce que laal na fan fan la courant laal seen noflaay seen aise seen lépp la laal courant moo tax ngeen jóg di fay fuy waaye bu bu fekkoon ne ne xale yi la xale yi la war a wax wala dem xool xale yi ci daara yu nekk ak ak ak maître coranique yi katt seen day ngeen génne manifeste génne ci ñoo génne leen ñooñu ñu tëj leen xam ne l'islam santaanewul loolu foofu ñooñu xam ne na yéen a ngiy liggéey waaye liggéeyu leen seytaane ngeen di liggéeyal seen poste ngeen di liggéeyal bâtiment ak euh, frigidaire ak climatiseur ak am lépp lu luxe war a am ngeen am ko loolu moom ngeen di xëccukoo mais xëccukoo loo leen yàlla fii kenn du ñu fi duulloo ku fi duul ñu jël duul wi lem lemasaat ka taxañaat ka dug tëmbal ko sa biir kër jël ko sa sa biir ab miir

quatre confrères yëpp laa wax nag ak seeni facture juma génne leen ko parce que électricité boobu public bi da koy fay consommation la waaye ndox maa ngi ñëw ñu ngi waaje a privé privatiser ndox ndox moo gën a garaaw ñu ngi koy waaj a privatiser au niveau mondial laa leen wax mondial ñu côté ko nag bourse boobu nag moo gën a neex côté ko bourse Il y a tellement de choses, je n'ai même pas envie de vous la prendre. Je la prends tout seul. Je vous donne juste un tout petit peu et je garde le reste. Comme ça, on voilà, allez aussi. Voilà, est opposé à l'islam, au christianisme et opposé à la colonisation. C'est des rétractaires à l'islam, au christianisme, à toute autre religion inclus dans leur, dans leur être intérieur. Nulle part, ils sont pas peur de la mort. Ça, c'est l'abbé qui l'a dit. Ils sont pas peur de la mort. Désignés par les peuls. C'est les peuls qui nous désignent. On n'a pas peur de la mort. L'homme au teint noir. Teint noir d'ébène. Le mot ébène, j'ai oublié. C'était dans le livre. Les quêtes décrits par l'abbé voilà, alcoolique, indiscipliné, attaché aux valeurs, etc. etc. Exemple, Dembawar Sal, Keddo. Voilà. Demba Waar sàll Sall lañ sant moo tax waar sàllaa ngi ci kaw di waar sàll moom it xam na ñoom xam nañ ni ci kaw lu ñuy waar xam nañ ko ci baatin mooy lan waaye moo tax it boo demee kër maam Cheikh Ibra Fall village bi ñu naan njab bi bokkuñu ci or bokkuñu ci sept piliers six piliers ou six piliers ou cinq piliers de l'islam bokkuñu ci way teddu gi dafa des dafa des racine toujours mu des toujours mu des sa mu jógee woon yàlla ko fay teg mu nekk atome bu tuuti boo xam ne mooy continuer di briller la lumière voilà <coughs> bu len ñu fonto say mam, kara ay ceddo la ñu woon yaa ngi ni delluwaat si sa cosaani mam ba nan da ngay def repent ngay def repentance jihatan nafs jihaata nafs moy lepp lu salté li nga don def nga dik neub te yow nga xamne dafa am ñu la top ay talibé yu la top ci sa jëfine te jëfin googu nga koy neub boy def jihatan nafs moy la purification de l'âme de ta pensée et de tes actes tu dois le dire le tax mu côté ko attaqué ko ci loolu lan mo tax ken attaqué wul Kara ci loolu Sénégal ñepp a sen seen gat xam ngeen ñi ngeen di attaqué ñi ngeen dul attaqué. Kara génneel sa facture courant génneel sa facture ndox depuis un an ou trois dernières années comme on fait en Europe. Justificativement, il lan gagné sa facture ndox ak sa facture courant les trois dernières années Modou Kara y compris les confréries qui sont au Sénégal sortez vos factures d'électricité et d'eau des trois dernières années ainsi que les mosquées ma xamal leen ne seeni tabaski korite tamxarit mu ngi jóge ci cosaanu ceddo xam nga waxoon naa leen ko vous ma daawaati jéeg vidéo beneen live boo xam ne dinaa leen ne seen tabaski bi ngeen jël ak seen te seen yooyu bokkul ci l'islam bokkul ci coran mu ngi bokk mu ngi jógee ah ci ceddo ma waxaat leen boobu xam ne da ngeen réer dinañ ubbi seeni bopp ba ngeen di tourner bu ngeen di tëddee du ngeen nelaw ñu leen di yee trois heures du matin te du ngeen xam ku leen yee ngeen nekk mel ni ku naan café te du ngeen naan café du ngeen tux du ngeen naan sàngara te ñoo leen fi daxa nelaw ñun di tux di naan sàngara di jël ay excitant sama excitant yëpp nag xaaral def ko entre guillemets bala ñukoy traduire lenen djel ay excitant ça veut dire lan café café a Sangara, à tout lolou mo la ay excitant yi may djel lu weesu loolu jëlaatuma lenen voilà yeen ñi nga xam nak djelu jëlu dara ay walliwu yaa ngeen 10 disant entre guillemets seen dëjjaw nday du ngeen nan café du ngeen tout sangar du ngeen waaw baxna sen yoon la c'est très bien vous avez choisi ce chemin mais moi en tout cas je dors 10h, 11h, je pose ma tête, je dors jusqu'à 6, 7h du matin, je me lève. Si je me lève à 3h, c'est pour communiquer avec mes mondes et recou aller me recoucher, poser ma tête et dormir jusqu'à 10h. Damay nelaw. Ma fi dakh nelaw malgré les gens, ñun dañu excités, dañu lii nous dañu lee ñi feebar duñu nelaw guddi ñi ay rab jàpp dëgg rab yi du dañ leen di sax ndar ka ma waxatuma fi voilà jël nga say excitant ba pare jël nga say affaire mais des na karaa ñun dañ la xamal ñun li ñu xam Kara looloo ci gën a tuuti ci yow li nga wax daanuwaatal xam nga Sénégal mënoo faa daanu daanu bu brusque dañ naan damm na mais daanu ndànk bi nga koy def ndànk-ndànk nga jox leen jox leen jox leen waat parce que des na ñun xam nañ te du Kara rek bëri ngeen ci bëri ngeen ci Bringen ngeen ci senegal ay melokan yi melni cora di neub li ñuy def alors tour len wa daanu len ci saret mo gëna gaaw man bama tege sama premier live laa xamne buñ may xamal buñ lay xamal di le vidéo à part di wax sa nday ak sa bay ak yow ni nga mel ak ñi la xamal jaral la ñu yoni ay espion bu bi Suisse rien que rek pour mëna a sa der au niveau médiatique lolu dañ ko xam motax man bama tege sama live laa commencé yàq sama der di joy yàq ko ba mu yàqu yaxeet ba xam ne bëggatuma sama bopp léegi ku jël dara nag tegg il faut mu nekk luy nekk dëgg lu ñu mën a vérifier mu nekk dëgg loo xam ne waxuma ko voilà naa leen xamal ne xeex bi le monde invisible est plus puissant que le monde visible te xamuleen lan mooy monde invisible pour nga am monde invisible da ngay nekk ceddu dëgg boo nekkee ceddu dëgg nga woo say maam say baam ñëw door la wuyu si mais tant que matalu loolu li nga war a matal ci kaw suuf gars duñ la wuyu voilà moy tieddo ceddo wat len ci tieddo gi affaire affaire conversion à l'islam conversion au christianisme moo secteur bobu toj Sénégal voilà tieddo yoy ñoo doon wax naan mu taw mu taw mu taw mu taw voilà xam-xam bobu mom lañu suñu mam bayil mais bo duggé ci yoonu tubaab yoonu tubaab perte xam-xam boobu koy perte doo ko am motax nak dañu defene man dama Europe pour dugg ci yoonu tubaab dedet man ay rawxaan ñoo ma guidé ba Europe ba ma continuer di def des may def bu bisu tay jii tous combien vous avez fait le compte sur Facebook mais ils n'ont pas pu éliminer les Tcheddo parce que les Tcheddo ils se réincarnent sur terre pour continuer les miss leur mission ma jëkkër fii laa toog publier naa ko sax tey daa gën a waaruwul sax da doon reetaan parce que yàgg naa kaa wax ay misaal muy ree fii laa toog démb may seetaan euh, kemi Seba le discours la conférence de Kémi Seba bi mu paree ba ma tëj ko laa ne ko kii buy génne fii ñu koy arrêté kan moo ko publier tey Kayz Fof moo ko publier te dama ko gis direct bi may seetaan conférence bi direct lañ ma ko wan ci Kémi Seba fii laa toog wax ko ko fii laa toog wax ko ko ma jëlaat page bi tey wan ko ko ma ne qu'est-ce que je t'ai di ko ko taxañ di ko ko daxañ di ko ko daxañ ba mu naan woyaa yooyu ñun woyaa yooyu lañuy ñuy wax duñu wax woy sama baay nañ dem rek wax leen seen sëriñ soosu seen xalif généraux yooyu ñaata milliards bu ngeen defee ay recherche di ngeen ko gis des milliards lañu amel Sénélec ba tax Sénélec amuñu milliards parce que tabax nañu seen tabax nañu lepp def nañu lepp jël nañ seen dañuy def Touba ville verte ville verte leen man dama sax ci wax dama franchement. parce que lo dama ko depuis Abdou Diouf di kat chaque année bo démé ci YouTube ci YouTube les quatre dernières années y a eu des journées de sept sétal les trois dernières années, il y a eu des journées de 7 7 Les 18 dernières années, il y a eu, avec chaque parti politique, avec chaque président, des 7 7 Et quand on revient aujourd'hui, le Sénégal est encore beaucoup plus sale qu'avant. Avec les mêmes endroits, des mêmes endroits de stock de poubelles, des mêmes endroits en plein air, des stocks de poubelles. Rebus. Quand on enterre Rebus, bois Rebus, n'y a pas grève bañu ñu tëj en tal fofu yëpp bu ngeen paré ngeen demee demati àllu Kébémer wala àllu keur Fatick keur Macky Sall ngeen outat fa àll defat ko en plein air en deuxième rëbës pour le Sénégal émergent ah wala ngeen kattandayam transformer rëbës en centre de tri des déchets nous on connaît la la routine moo tax bu may gis ñu nan dañuy def ay manifestations pour nettoyer dëkk bi mais même chanteur artiste sénégalais sax amoon temps dañu bokon ci set setal bi ba ay cette mbay way setal mi ci mi a Abdou Diouf Cette setal da nga defé dañ ne bu bu salté nga dem putain de merde d'esclavage bu dem bu salté nga bu nga mais fais tout pour ne pas salir ça t'empêche de nettoyer loolu laay def sama fais tout pour ne pas salir et ça diminue le nettoyage déjà un tuubaa ngi noonu ñaata ñaata at ñaata at lay ngeen di gàmmu ñaata at ngeen di def ay gàmmu ñaata at ngeen di def ay ay anniversaire yu kattandayam ah ñaata yoon ngeen di indi ay lekk tuubaan dugal ay toni toni lekk te bu ngeen paree du ngeen toj seen cottu ndey recyclé terew ñu leen ngeen lekk terew ñu leen ngeen happiness

qui wax ça veut dire connecté ak ancêtres ancêtre connecté ou ça veut dire quoi que l'islam a été introduit au Sénégal toutes les religions ont été introduites au Sénégal jusqu'à ce que vous niquez et vous prenez cette introduction comme arme de guerre contre qui les gens qui vous disent la vérité mais la vérité elle régnera elle restera quand on a les yeux rouges c'est parce qu'on est possédé c'est pas parce qu'on fume c'est vous le voyez maintenant je n'avais pas les yeux tout blancs et maintenant je parle parce que je, monte ma tension et vous voyez mes yeux sont rouges. C'est parce qu'on est possédé, nous, par nos entités, par nos ancêtres. Les ancêtres qui étaient là au Sénégal, qui luttaient pour contre l'islam,

D'ailleurs c'est interdit l'alcool même le traversé du pays T'es pourtant ñu qui koy jaay ci biir alcool bi di interdire alcool hein? sa dem leen laaj Kara fan lay jënde ci Sénégal fan la doon jënde Sangara ci biir Sénégal moo taxit bi Assane Diouf non nan, nan dañu jël ay talibé di len yónni ñom ñuy jënd ji sangara di len jox deug la duma gëm nit ci lepp mais am na wax yoo xam ne man bu ma xamee ne dëgg la ma koy wax du ma naafeq waaw ñu des nag ñi nga xam ne drogue bi nag ci drogue bi nag bu weex bi nag ci cocaïne bi nag moom la ñuy jël ñooñu nag la xaar nag ñu wanewu wane leen seen bopp ni karaa wanewoo wanewoo leen seen bopp xam na boppam moo tax mu wanewu parce que duul yi dafa doy duul yi dafa doy Il faut vivre avec la vérité. On t'aime pour la vérité, on t'aime. On te déteste, on te déteste pour la vérité. Mais ça sert à rien parce que la vérité est plus puissante que toutes sortes de formes de rage, de haine ou de rancune. La vérité est plus puissante. C'est yu ça sax dañ C'est C'est you yu in dañ parce que ay jigéen lañu won ño xamné ne dañuy liggéey ci sen biir ils étaient choisis pour travailler ensemble au niveau spirituel mo taxine mo taxone mam Cheikh Ibra Fall def garab guñ nan tatou nger fa lañ dan tek jigéen ni di len waaj di len wax di len tegalaat tegalaat ci yoonu yalla di len toubal seeni péché bu ñu paree ñu tegaat leen fi moo tax ñu koy way naan jigéenu nger yeeg jigéenu taatu bete beteeg jigéenu lii parce que mais jigéen ñooñu tey kenn bindul seen histoire def ko ci livre yi pour jigéenu Sénégal tey man a roy ci ñoom xam ne lan moo woon seen xeex xam lan moo taxoon mu doon tux kii sant Mbodj te mu daan tux lu tax defu leen ko ci histoire bi lan moo taxoon suñu maam doon tux duul ak seen i tuxkatu yàmbaawaay seen cottu ndey Nous sommes l'empire du Manding l'empire du Manding qui s'étendait jusqu'à la corne de l'Afrique tous ces pays arabes de merde là d'aujourd'hui c'était l'ancien empire du Manding aujourd'hui le Maroc a des hectares dans le Rif hein, de cannabis Gambie a des hectares de cannabis Sénégal a des hectares de cannabis vos ancêtres qui étaient empires dans tout ce royaume putain de merde utilisaient du cannabis jusqu'à fabriquer des vêtements C'est dëgju ndey tubaab bi lolou lañu dem gëstu xam que ñëw tok diko titero ba di def ay film di len ñaawal di len kokkali di len garowal mais vous ne captez rien du tout rien capte rien len motax Emmanuel Macron a dit qu'il va renvoyer tous les objets un mandat de cinq ans devant il veillera à ce que tous les objets sacrés de l'Afrique soient renvoyés dans leur source d'origine. Et pourquoi Parce qu'on les a montrés qu'avec nos ancêtres d'Égypte, ils ont plié l'Égypte et l'Égypte les a donné des malédictions de toutes leurs scientifiques, de beaucoup de choses. chaise boobu dañ ko tëj duñ ko wax sax duñ ko wane te ci Égypte la jógee lépp malédiction la léegi nag ñu ñëwaat ba ci empire Mandeng ñu ñëwaat tabaxaat foofu dëkk fa nag ñu ñëwaat fekkaat ñu foofu nag sàccaat suñu lépp pliyewaat suñu lépp moo tax Emmanuel Macron na tey nañu delloo yëpp bu ñu commencé di delloo benn Sénégal ngi ñëw ndànk-ndànk yeneen pays yaa ngi ñëw ndànk-ndànk nee naa objet buñ ci delloowul malédiction lay doon seen seen ñoom seen dëkk malédiction lay doon tey nag lañ leen ko wax parce que yàlla dafa am yërmande ci nit motax mu yoni ay nit ci kaw souf di len ko wax par message ñom xam nañ sax limay wax motax projet ak mandam ak mission Afrique la Afrique du Europe gi du France parce que mom bu paré ba paré day joxe France pare na ci mom day joxe France yeen hamulen combat bi fu ñem bis bu ngeen ko xamé di ngeen comprendre Sénégal ku wax ku ne ne ku ne ne islam moo fa jiitu ceddo dangay taj sa gan ak ku ne christianisme moo jiitu ceddo ci peuple sénégalais yi dangay ubbi sa dëjëw ndey ma tegal la saaga boobu balaa ma ngay contredire en avance ceddo il moom il il dit di dunde Jamaïque moom la ñuy dunde ñoom pas moom la ñuy tous les pays là qu'on a métissé là les mulâtres d'origine des mulâtres on vous a donné le métissage nous ñëpp loolu la ñuy d'une ñoom ñëpp dañuy naan seen sàngara ba la dugg seen xambi maam yi ñoom ba ci Brésil petit Brésil ñu pas ak tradition Afrique amaat am na fa ba léegi ba am fa yalla yalla buy effacer du buy recommencer di construire terrain ba mu ba mu bâtiroon xam ne moo ko moom fallait construiraat lépp fondation gasaat defaraat ko bu mu dëgër même bu bâtiment bi mabbe moo tax Sénégal la Sénégal la ma boole ci aussi parce que dama bëggoon def dossier aussi à part parce que nous nous nañ à part <laughs> criminel yooyu dañu à part dossier <laughs> naa leen defal sax dossier à part parce qu'il y a pas mal de pays africains maintenant qui quittent l'OCI pas mal de pays qui commencent à quitter l'OCI cette organisation criminelle de l'Afrique dirigée par les blancs pour l'extermination des peuples africains l'extermination des présidents Bon, ils ont utilisé i utiliser oto bu ils sa accepté les nga accepter les la wax ñu même aussi ils sax bi nga tout ah, pour encore plier l'Afrique pour encore impressionner nos présidents pour encore utiliser la pression l'oppression tout ce que vous voulez cet organisme il lui reste pas beaucoup de temps à vivre d'existence. Pour moi, c'est une organisation pour une paix criminelle. Organisation pour une paix qui est criminelle. Cachée sous la criminalité en Afrique. Voilà, dafa duñ ko pourtant Cheikh Ahmadou Bamba je vais vous de xeexul pour Sénégal au nom de l'Afrique, je moo tax tey Afrique je xam ko au nom de l'Afrique, pas au nom du Sénégal parce que l'Afrique na que Afrique est benn ils se sont combattus au nom au nom de toute l'Afrique, c'est pour ça que toute l'Afrique qui les connaît ces érudits là. Quand tu combats, combats pour toute l'Afrique, comme eux, ils l'ont fait. Ils ont combattu pour tout ton continent, jusqu'à ce que leur, nom reste 200, 300 ans après, ou 400 ou 1000 ans après. Quand tu combats, combats au nom de l'Afrique. Si c'est petit pour toi, l'Afrique porte le monde sur toi et Dieu te portera. C'est une hausse de l'électricité hausse de l'électricité pourquoi parce que seen poste lay laal seen poste, yéen oustaz yeeg xale généraux yi ngeen xam ne du ngeen fay courant moo il faut ngeen ubbi seen kat seen gémmiñ nga wax comme ça affaire bi mën a seey après ñu jàllal ko noonu ñun xam <laughs> waaye affaire bu le concerner, kañ da ngay génn wax xam ne daawoo ay fay électricité bu la concerné xamne war nga génn tay alal ju dul jeex ci électricité da ngay wax waaye waaye amna na xamne dañ na lan mëxal te ne muut je ne muut ñoo Sénégal ban ba ne mais ah duñu fay duñu ne mout ñoy wax ñoy ubbi sen Sénégal ñaata ngeen amal Sénélec ci ay milliards quatre confréries quatre généraux yi seeni électrique les trois dernières années comme justificatif ak abbé gémmiñam gu toj cat ndeyam gi limuy wax genné len ko yeen pour contredire man lima wax wala senelek senelek bala ngay jël ah boru serigne ci nga koy teg si njaboot gi kattaleen sen nday yeen tamit ngeen genné wax ndax ñom dinañ fay courant wala fayuñu courant yee len nit ñi bu ngeen yeenu len nit ñi yeneene indi problème parce que ñun ñi xam dañuy ubbi suñu kat di wax génne leen seen facture juma ñun fii suñu facture suñu courant bi nga xam ne ne escalier bi la escalier bi ñëpp ñoo ko bokk ak ascenseur bi ñëpp ñoo ko bokk ah dañ koy fay dañ koy justifier suñuy facture ñun xanaa peut-être dañ leen branché ci réseau poto lampe yi direct comme ça du ngeen am compteur xanaa seen deal la ak waa Sénélec ñu branché seen compteur direct ci poto lampe direct fil bi te du ngeen am compteur ci seen biir kër ngeen di ko consommer rek agogo gogo gratuite xanaa loolu lañ leen defal senelek deal boobu xanaa dafa am agent yoo xam ne ñu ngi ci suuf dañu def deal boobu te ñi ci kaw ci Sénélec xamuñu ko ñu jox leen neexal leen jox leen dessous table gis nga rawxaan yi liñ may liñ may jox seetaat leen li ngeen di def seen bopp moo gën ci yéen parce que ku leen ëpp doole ngi fi tiim leen di dëgg seen ndey chaque jour xale bu tuuti ñàkk ab yar ba dof amul kilifa mooy man bu fekkee ki may waxal mooy yàlla te mooy sama kilifa ma xam ne ne rek laaw la cat cat du ma dugg làmmiñ du dugg liggéey du dugg dara du ma dugg bu fekkee mooy kilifa gi rek ci kaw <laughs> nañ dem même même même même pompiers yi sax pompiers yi sax ndox mi ñu am public pour en cas d'incendie ils éteignent les trucs ñoom sax dañuy am ay facture facture boo xam ne ci public caisse publique lay jóge waxatuma seeni poté lampe lépp dina leer lii moom maa koy consommé maa koy consommé maa ko wax moom laay def ngeen ma di ko wax di ko jëf sama xalaat ngeen di ko gis maa ngi nii teg ko si taabal bi def leen ni man wàcce leen ana borom cocaïne yi nii

xam na ne boo waxee ne Touba du ñu fay ndox Tivaouane du ñu fay ndox Laayeen yi du ñu fay ndox Ndiassane yi du ñu fay ndox kër xalif généraux yooyu du ñu fay ndox bu bu waxoon loolu yëpp Sénégal tas.